léegi ñu ngi si xanu xanu ko gi xanu waxoon nañ firim istimaalul xanu jëfandikoo xanu manquusan léeg-léeg ñu def ko manquus léegi ñu yokk ci waaw ga wala af saxu la gën a fasaa istimaalul xan yi mooy jëfandikoo xan ka xadd ko mu xadd def ko man manquus ay ñu xasab mujj ga charx mm-hmm. dégg nga istomila buñ jëfandikoo alxanu xeere mu daaf waaye laafut kaana nekk na bi ijmaa yi ci dëppoo man xuusan waaye laafut dafay nekk man xuus moom ay maxduufa laami luñ dagg laam nga moo raban diriñ ay rabbil xarakaati ci masque yi loolu moom ñoom ñëpp ko bokk te saayir axawaat yi comme mbokk mi taxul na xaada xanun wa raaytu gis naa xanan maratu bi xanin anu fii rek waxoon nañ ko. كما تقول كم نوع خنا يعجبني إذا لم يوم غد سبا أزوم دنا ور غد سبا وحتى كفت لنا تكفنا في غد وإذا استعمل بنك جفنك مضافا ملاف ممهنو فجموع العربي لو أبتش عربي تستعملوا إنك جفنك كذلك كم نندفكو منقوص فتقول لي هذا لي هنوك waraaytu hanaka wa marartu bi hanika kama yafaluuna comme ni ñuy def fii xadika suba am ñoo xam ne dañ koy irab irab asmau sitta wa baadum ñenn ñi yu jiri dañ dawal xanu mujra abin dawwaay abun ak axun ak mbokk fa yoribu ñu irab ko bil xurufi salaasa si ñetti araf yi fa yaqul ñëw ne haza li hanuka wala hanuki waraaytu gis naa hanaka wala hanaki wa marartu romana bi hanika wala bi haniki bu dee jigéen loolu nag waaye moom luxatun làng la xalilatun bu néew moo tax mm-hmm. yenn yi sax da ngay gis asmaaw xamsa lañu mm-hmm. ñu ko ci boole nga day gis ne inraab ko inraabu asmaaw xamsa mm-hmm. mooy muy rafaa waaw nas bi alif jëre yaa moom xanu bëriwul zakara tudd ko si woy si woy moom inraab boobu waaye wala muy tali gisul ala ci moom wala zajjaaj taagan zajjaaj fa asqataahu ñu rotal ko min iddati haaji asma ci limu ida tur wa addaaha ñu lim ko ñoom ñaar xamsata muy juróom farra ak zajjaaj ñoom gisuñ ko loolu ko defee asmaa xamsa am nañu ko ñaar dégg al musanna dafay rafaa waaw dina si bay alif di jëree damay dafa alif laa bëgg wax dina subee yaa di jëlee yaa jëmm muzakk saan dafa dafa waaw dina subee yaa di jëlee kon moom musanna ñoo bokk nasab ak jar fa ñu wutee rek mooy rafa musanna rafa alif jëmm muzakk saan rafa gi waaw ka zaydaani comme fayal foofu dañ ko defaa bil waaw ci waaw yu jaraan dañ leen jar ñoom ñaar wayin suba ñu nasab la ñoom ñaar bi yaa parce que ko bokk wa kilaa kilaa wa kilta kilaa kilta mulxaq bil musanna te musanna dafay fekk nga mën maa damir bu ñu ànd ak damir kilaa kilta bu ñu ànd ak kilahuma kiltahuma leneen irab irabu musanna bu ñu ànd ak ismu zahir nag ñoom dañu irab irabu maxsuus jaa kilahuma raayt jaa kila rajul rajulayni raaytu kila rajulayni marartu bi kila rajulayni ngay wax parce que laa fu musanna kan musanna bu bari ñu irab comme musanna wa kazaalika isnaani wa isnataani xam nga dafa isnun wa isnun comme que mën na ko teqal du musanna waaye mul xaq bi musanna dañ leen irab irabu musanna mutlaqan nu mën a demee isnaan isnantaani waaye rukki baa dañ leen a toggale sax moom isnaan isnantaani ñu ànd ak beneen jumla isna ashara ba léegi dañ leen irab irabu musanna wa ulu ak ulu moom it du musanna du jamo muzakkar saayam ndax jamo muzakkar saayam dañ koy teqale waaye insuruna ak insuruna xam nga jamo muzakkar saayam moom xalam lay doon wala mela sayyidu ñaanam duñ melo isruna adad la lim la waa xawaatoo rek mbokkam muy salaasuuna xamsuuna yooyu dañ leen yéege si ñoom muzakkar saalim wa aalamuuna ak aalamuuna xam nga aalam tamit du wa ahluuna ak ñooñ waabiluuna waabil waame wa araduuna araduuna yi ay suuf yow muzakkar saalim tur bi la doon du nekk jigéen wa sinoona ak sinoona wa baabu ak buntab si noona mooy euh, bépp kii boo xam ne ni dañoo dañoo comme euh, sanawun mujj ga dagg ko daf ko taa muy sanatun dégg nga moomay baabu si noona wa banuuna ak banuuna wa illiyuuna yëpp mul xaq bi mos naa wa sibu ak yi nuroo yooyu yooyu neen i'raab baal yi ko doon su ko defee mu njëkk njëkkee musanna door ñëw ci jamo al baabu saani mu buntam ñaareel bi mu baabu saalis ak buntam ñetteel bi maa xaraja mi ci rek génn naa ne asli si cosaan yi nga xam ne duñ leen érabé ci mas al musanna comme zeydaani ak omaraani ak jamo muzakkar saalim comme zeyduna ak omaruna xam nga yaalam lañ dégg nga i'raabul musanna lay njëkkee umaayu xaq ak lañuy yéege bi musanna amal musanna fay noonu ak moom yurfa'u dañuy rafa bil alif ci alif niyaabatan wut waa ne dammati ci dam way juru danañ ko jar way nu sabu ñu nasab ko bil yaa ci yaa niyaabatan mu wut waa ne ci kasa mm-hmm. wal fataate ak fata bu ci nasab gi la mm-hmm. taxulay wa jaa dikk na azaydaani ñaari zayd yi waraytu gis bi zaydayni si ñaari zayd yi lu mu alif lu mu nasabee yaa lu mu jëlee yaa am alif dafa wutu dam parce que dam mooy cosaan lu mu nasabee yaa dafa wutu fata ci nasab ga ba mu dafa wutu kasra ci jërk dégg waa amaloo yenn nañ fi zaalika ci loolu arbaat alfaazin ñeenti baat dégg xam nga musanna baat la buy tekki ñaar dañ yokk ci mujj ga alif ak nun wala yaa faalihun hmm? li tajriid dafay mën a rafle wa atfu misli alayhi da ngay mën a tofal lu mel ni moom ci moom dafut ko rek bu dee baat bi benn lay tek kenn du ko tuddee musanna rajulun moom du musanna mufrad la buy tekki ñaar waaye yokkuñ ci dara comme chafon chafon am ñaar rek waaye yokku ci alif ak nun du musanna baat buy la yokk nañ ci alif ak waaye mënul tëj def tajrid comme kilaa kilta isnaani mun a wax kil xawma isnan wa isnan yoo ko kon du musanaa waaye mun xaq bi musanaa la bu ci jógee ay fan noonu mun xaq bi musanaa la su fekkee saalihun li tajrid mën naa rafle waaye mënoo atfu misli ali te léegi du musanaa comme alqamaraani fekk achamsu wal xamaru la boo ko teqee mën nga koo teqalee waaye boo ko teqalee mënoo tofal lu mel ni mënoo alqamar wal xamar boo ko teqalee moom achamsu wal xam nga umaraani boo ko teqalee Abu Bakar wa Umar kooku it mulhaq bil musanna la kon yi nga xam ne nii firi musanna jaaduwul ca mulhaq bil musanna lañ koy tudde yooyu lay wax ne ñeenti baat la yu ñu yéegee ci musanna lafzay ne ñaari baat bi shartin dafay yéeg ci musanna ci shart wala lafzay yeneen ñaari baat yi bi xeeri shartin ci lu dul shart fa lafzaani ñaari baat yi allazaani yi nga xam ne bi shartin shart la كلا أكلتا تين تين تين تين تين kilaa kilta duñ musanna mm-hmm. ndax moom def na yusanna al alam alam dañ koy def musanna illaa idaa nukkira lu ma ñu def ko nakkira alam buñ ko defee musanna tur buñ ko defee musanna nakkira la léegi mm-hmm. wa idaa tuqarna bi musanna alif wala moo tax boo ko defee musanna da nga ci def bu bëggee da bu dee ko bëgg a def alam ndax comme az zaydaani kon boo ko defee musanna da nga koy def nakkira mm-hmm. an yakuna lahu saanin ñaareelu sart bi ci musanna mooy ne am ñaareel fi wujjuri ci am ki xam nga yàlla kenn rek la kenn du ko def musanna la ñuy def fekk am nañu morom mm-hmm. añe tafiqa lafzaani ñaari baat yi benn mm-hmm. hmm? waaye jën am ndox kenn boole def musanna parce que ñaari baat yi du benn añe tafiqa maanaa kulli waahid mooy maanaa kenn ku nekk dëppoo mu ne isnaani si ñaar mm-hmm. Hmm? dégg nga jant ak weer kenn du def musanna na seeni maana bokkuñ kanaa nga def ko taxalib notal kenn ki jëm kenn ki ni mu ko firi nii daal kii ne waaye nu ma waxoon man nga ko jàpp kilaa kilta sax tey dajewut wa sartuma seen sart an nekku naa ñu nekk mu daaf leen di ñaari way laaf ila demir ci demir mhm. sartaay musanna moo ñu laaf damir kilaa ak kilta pour nga defee ni nekk musannaf foo ñu laaf damir taqul nga ma jaani dikkal na ma kilaahuma raaytu kilayhima marartu bi kilayhima bu ñu laafu damir doo ko i'raab i'raab musannaf fen kaana nekk nañ mu daa fen di laaf ila zaahiri ci isim bu feeñ nekk nañ bi alif ci alif wala kulli nga ma jaani dikkal na ma كلا أخويك كم تسنيار بوكي ورأيت جزنا كلا أخويك في دفن زم مالا جان زم فتاة قنية تلسي مجرى عمرة رمنا بكلا أخويك فيكون منك إعراب وما سن إعراب هنا إذن جمال بوب بحركات جاي ماسك مقدرين نتلف ألف جارف لأنه ما نحن نعرف مقصوراني نعرف مقصور. كم فتاة كل فتاة كم فتاة ولا ساجد مقصود ما يلاقنا مجد لا سكر إيه؟ في آه، لك جيتو فتاة مجد بنا لك جيتو فتاة على الموضوع وكذا كني لي لدمع القول وفي كلتا تقول لنا يعني كلتا هما رفعا برفعا كلتا هما جرال بجرى ونسبا بنسبا wala nga ne kilta oxtayka bil alif ci alif fil axwaali kon kilaa ak kilta ñooy ñaari baat yi nga xam ne ñoo ne ci musanna waaye ci sart ñu laaf damir buñ laafee lu dul damir nag dañ leen inraab inraabu mu tuddati maqsuur fataagi dañ koy nettali rafaa gi ak jerk wala zaani ñaari baat yi àll zaani ñi xam ne bi xëy sartin dañ leen érab ci lu dul sart mooy isnaani isnataani moom it duñ musanna loolu la ci musanna nekkoo gis naa ne moom na saani ci wujur waaye nag mënul teqale baat bi daal foo mu nekk baat boo xam ne da nga leen mën a teqale te ñaari maanaay nekk benn moom ba mu waxee loolu ne jant bi ak yi mu ne buñ leen buñ leen def kii musanna dafa nekk taxlib wala boog nga wane ne ci misaal ay jant yu bëri mënoon naa am ci nattale te amut nga ne samsaani waaye laa jant benn jant rek la kon samsaani warul am waaye nag boo nee si nattale bu yu bëri mënoon a am léegi isnaani mënoo leen teqale loolu ngay wax kon du musanna dañ koy yéegee ci musanna taxul da nga wax jaani dikkal na ma isnaani ñaari ñu góor weesu taani dafa rafa maanaam dafa alif la waraaytu gis naa isnayni wasnatayni dafa nasab maanaam nasab gi yàlla bu marartu romb naa bisnayni ci ñaar wasnatayni dafa jar maanaam jar gi yàlla. kon du musana waaye mulxaq bil musana lu tax parce que mënoo ko def tajrid maanaam mënoo ko teqale fa toxalibu maa dañ leen irab irabal musanna ñoom mutlaqan la nag isnaani isnataani wayn kaana ndem nekk nañ xëy mu daafay laafuñ jële laafuñ dañ leen irab irab musanna kon ñoom laaf gi du sarta wa kazalika nekk noonu tunribuhuma da nga leen inrab inrab boobu inrab musanna iza kaana buñ nekkee mudaafen di laaf li damir ñeel damir buñ laafee damir dañ leen inrab inrab musanna ñaaram ya isnaa ka say ñaare xam nga laaf na waaye neen inrab inrab musanna moo xam ne ñoo laaf damir wala ñoo laaf ismu zaahir nahwa isnaa axawayka aw li zaahir wala ñu laaf ismu bu feeñ nahwa isnaa axawayka sa ñaari mbokk maanaam ñaari yi xam ne say mbokk ñoo ko moom loolu lay fiir di dégg su ko defee laaf na ismu zahir waaye bu nasabee isnay axawaay ka ngay wax kon ñoom danañu laaf waaye buñ laafee buñ laaf lañ leen irab irabu musanna wayin kaana di la nekk mu rakk bay ne di ñaari way toggale maanaam sori ànd ak fukk xam nga ñaari lim yoo gis lim bu ànd ak fukk boo ko gis rek xamal ne dañ koy binaa ci fataa salaasa ashara ñaari dañ fata moo xam dafa nekk si bërëbu rafa wala nasab wala jar salaasa ashara rek arbaa ashara wala arbaata taagi ak ñàkk moom ci li ngay ashara wala xamsa ashara sitta ashara saba ashara samaniya ashara tisa ashara yooyu dañ koy binaa ci fata amma isnaani moom buy ànd ak beneen limite ashara gi moom kooku dafay tolloog nuun ga xam nga rajulaani rajulun la woon mufrad amoon na nuun ba nga ko defee musanna nuun nga moom nga indiwaat nga indi rajulaani isna asara tamit dañ naan isna bu rafaaye faay marfon bi alif wa asara fi muqaabalati nuun moo taxaw place nuun kon moo remplace tanwin tanwin ba ci bu fekkoon ne am na mufrad isnay ashara nga yow bu nasab bi mm. moo tax wen kaana dina nekk ñu murakkabayn di ñaari way togg de ma ashara te ànd ak fukk mm. dañ leen erab mm. naa wa jaane dikkal na ma isna ashara wa raaytu gis naa isnay ashara wa marartu romb naa bisnay ci fukk ñaar su ko defee isna gi moom lañu erab amma ashara gi nag fii muqaabala ci nuun dafa taxaw palaasu noonu mm-hmm. mm-hmm. dégg mm-hmm. kenn doo ismun wa ismun wa isnatun wa sintun kon su ko la yéegi ci musala nee nag boo demee ci charxu chuzuru zahab lañ yéegi ci musala juróomi baat la isnaani isnataani ci loxo xijaaz waa tamim sintaani sintaani yooyu dañuy eraab eraab musanaa ci lu comme ni ko taarifkat bi waxee kon sintaani lañ ci yokk sintaani isnataani benn la rek ak kila kilta duñ musanaa waxoon naa la tax nekkuñ musanaa su ko defee ñeem foofu ci musanaa benn yoon ñu doon jël eraabu jama muzakkar سالم وما يلحق به أكلا موي حقيقة جمع مذكر سالم تفهمين موي عندوكو يريد الإسلام استطعت ما توفيقي إلا بالله علي توكلت إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته